damay laajte damay laaj Black Panther deuxième saison bi day waaja a commencé wala déet fa yi daal maa ngi koy gis ndeysaan waaye nag am na ku ca faatu woon rest in peace loolu laa lay laa lay wax yow waaye nag Black Panther bu ma ko dee seetaan kenn rek laay gis muy Baaba Maal dem ci réewu tubaab yi di fa représenter Afrique di fa représenter kan Sénégal Black Panther boo koy Black Panther boo koy seetaan Afrique ngay gis Sénégal ngay gis culturel Sénégal ma nga ca biir Baaba Maal yow tamit maa ngi lay ñaanal bu baax a baax Baaba Maal fa nga ko teg foofu la moom laa gis koo xam si international la barke bi mal xaamal ak bar amul lum ciy defar amul lum ciy yàq moom sec esa lu nice lay def moom moom sa su ne mi ngi génn niveau international di ko naayisal bu baax a baax yow Baaba Maal man yaa tax man Oustaz Ahmed Diouf Fall mëkk may seetaan Black Panther maanaam xamal ni deuxième saison bii yàlla na nekk ay saison saison saison saison nga xam ne yow Baba Maal yaa koy téye di ko représenté maa ngi lay ñaanal bu baax a baax gëm nga sa bopp gëm nga sa cosaan te fun la mën a woo ci àdduna bi bala ngaa def dara sa cosaan ngay njëkk a teg ci taabal ji loolu tax Baba neex ma wooye dem nga ci président bu nekk ci européen yi taxaw nga fa <laughs> woyal ko mu yuuxu sa baat bi yàlla na la yàlla lafal cat yàlla na yàlla wiiral baat bi wa bay nukum ci nu xurujukum guppo guppo guppo faata gupp laamen gupp lëfër lëfër barke bi mbar xaama lakk ba yuuxu gi nekk Black Panther nag benn la ci mim réew mais baaba man bëkk faal maa ngi lay safoo bu baax a baax yow daal noonu la doxalal rek nekk fi yàgg guddal fan rek waaw waaw lépp loo xam si day këf nit yàlla bu mu la këf lépp loo xam si day fodang nit yàlla bu mu la fodang yow daal dénk naa la ki nga xam ne moo jot a dénk moo jar a dénk muy yàllay kese ji wasalaam